naka yéen xale yi nangeen déggal seen waajur ci li ngeen bokk ci boroom bi ndaxte looloo rafet teral sa ndey ak sa baay mooy ndigal li jëkk ëmb dig maanaa ngir nga am gudd fan gu ànd ak jàmm yéen baay it buleen bunduxatal xale yi waaye ngeen yar leen di leen yemale ak yee ci boroom bi na ngeen déggal seeni sang yu àddina boole ci ragal ak wegeel di ko def ak xol bu laab ni su doon ngir kirist buleen ko def rekk ci ngistal ngir sàkku ngërëmu nit waaye ni ay jaami kirist di jëfe coobareek yàlla ak seen xol bépp bey leen seen sas nag ak xol bu tàlli ni su doon ngir borom bi te du nit xam ni ku def lu baax boroom bi delloo la ko muy jaam muy gor yéen it sang yi jëfe leen noonu seen diggante ak seeni jaam te dëddu gépp raglu xam ni yéen bokk benn boroom ci asamaan te ñépp a yem fi moom léegi nag doolewu leen ci boroom bi te solo kàttanam gu màgg gi gànnaayoo leen yére xare yàlla yépp ngir mën a jànkonte ak pexey seytaane ndaxte ndëndu xare jib na waxuma suñu diggante ak nit ñi waaye ak kilifa yiy nëxal àddina si ñuy kilifa yi ak ay boroom sañsañ di gaayi seytaane yi ci barab yu kawe yi kon nag gànnaayoo leen yére xare yàlla yépp ba mëna a jànkoonte jamono ju xeex bi tare noot lépp te taxaw temm taxaw leen kon temm gañoo dëgg te sangoo njub muy seen kiiraayu dënn soloo leen jàmm ji xabaar bu baax biy joxe ni ay dàll ci seeni tànk ba jekk ci lépp def leen it ngëm muy seen pakk ba mën a fel jum yi leen seytaane di fit def leen mucc muy seen mbaxanaam xare ak kàddug yàlla muy jaasi ji leen xel mu sell mi tëggal dee leen ñaan ci xeeti ñaan yépp ci kàttanu xel mu sell mi te sax ci ak farlu gu mat sëkk di ñaanal gaay yàlla yu sell yi yépp te bu leen ma ci fàtte ngir waxtu wu mu ubbee sama gémmiñ ma am lu ma wax ba mën a xamle ak fit wu dëgër mbooti xabaar bu baax bi ndaw laa ci lu ñu jéng na ma yàlla may fit wu ma waxe ni mu ma ware yónne naa leen tisik sama mbokk mi ma sopp te muy jawriñ ju takku ci liggéeyu borom bi ngir mu xamal leen lépp lu aju ci man ak li may def maa leen ko yónneel sama bopp ngir ngeen xam li nu nekke te mu defal seeni xol yéen mbokk yi ne leen yàlla baay bi ak yeesu kirist borom bi may jàmm ak mbëggeel gu ànd ak ngëm ne wu yàlla ànd ak ñépp ñi bëgg borom bi yeesu kirist ak mbëggeel gu sax